ne dañoo yor rab te rab yi da leen di yàqal lu baree baree baree bëri mm-hmm, maanaam luñ dugg mu yàqu ta parce que rab la mm-hmm. li koy dindi dafa bokk ci xaru tabaski mooy buñ ko rayee ba noppi nga moom ci suuf fi mu tëdd maanaam suuf si mu tëdd nga bàyyi ko nag ba mu wéqu ba xar mi wéqu ba dal ba nga xam ne dal na mm-hmm. nga ñëw taxaw ci fi bopp bi tolloo bopp bi jàng faatiha dem fi tolloo gen bi jàng faatiha dem ci ginnaaw xar mi jàng faatiha ñëw ci kanamu xar mi ci tànk yi jàng faatiha su ko defee daal di cibb ci fii xar mi tëddoon nag. waaw fi mu ko doon rendee muy fekk noonu. nga cibb ci suuf si. Mm-hmm. def ko ci ndox sa ngoo ko ci bi bisu tabaski bi. sangoo ko loolu dañoo wax ne ku ko def. Mm-hmm. bu dee ay rab yi bu néew bu néewee kii da day dindi rab wala lay day tax sa rab daal dootu la yàqal daf lay juboole ak ñoom ak moom. dootu la yàqal waaw. noonu lu leer na. après nga dem TV saa. TV saa dama ko wax ndax dañ koy waxaat ba pare yow yow ma wax léegi bu ko defee bokk foie. tabaski tamit. foie xar menn xar. waaw nga jël foie bi waa kër gépp lekk ci. Hmm. dafay indi jàmm. jàmm ci biir kër googu. bu ñu saaf waaw bu ko saafee ba pare ñu bokk ko lekkandoo ko. dafay indi jàmm. dañuy indi jàmm. voilà. dégg nga. Hmm. Euh, bu fekkee kër goo xam ne tamit. lu mel ne ay liggéey wala yàq. Hmm. lu mel noonu ak sàcc. ak lépp loo xam ne daal gàllaaju kër. dañuy jël ci suuf soosu. suuf soosu xar dégg nga. buñ ko jëlee def ko ci biir béjjën bi jël saabu tay ko ba ba nga xam ne wala mbuus tay ko ba nga xam ne du génn béjjënu xaru tabaski bi. aussi génn béjjën waaw. nga def nga def ko ci biir kër gi. dafay aar ay jinne dafay aar ay affaire lépp lu bon. ci biir kër daf koy aar ak sàcc sax aussi. ba ci sàcc. waaw danañ ko def ci kër. danañ ko def ci magasin. voilà dañ koy suul ci kër gi. dañ ko suul ci kër gi appartement moom bokkut. Hmm. ci non mën nga koo sax def ci saako wala morsa non non nga def ko ci saako wala morsa takk ko ci biir kër gi fenn. waaw baax na loolu ba tey mën nees na ko def. bu dee fu mel ne Dakar nga xam ne appartement la ñuy am. voilà waaw Cheikh Bara hmm. allah li nga joxe ci xar yi am na solo Cheikh baara euh, tur gi numéro ba gars yi anañ. tur gi waaw numéro bi nag moom noppal na ma. waaw te xam naa noppal na gars yu bari. parce